ay na woy ko léegi pare ne musique sénégalaise war nañu ko nangul ni laa mën a woy biir bu yemoon ci mën a woy traditionnel rek ñu ne gongo Aïda moo mën ci moderne Aïda woy na fi ay afrobeat Aïda arène bi woy na ko fi yaakaar naa ni bu génnee album Sénégal yëpp xam ni woy li woy li bi génne album woykat bi génne na album xam ngeen ma Aïda su ma yàgg nag damay bàyyi ñu maa ngi ñëwaat léegi album bi man ak yéen ñoo koy décortiquer ensemble nañ ko dégg. kontaan na waaw. merci beaucoup Pape bi moo nekkoon morceau bi ci topp nag c'est une chanson d'amour c'est une chanson d'amour boo xamante ne ni dama ci invité sama frère morceau bi ci topp Baby la tudd c'est une chanson d'amour boo xamante ne ni dama ko way invité ci sama mag sama frère en Dip Doundou Guiss beneen bi ci topp nag mu ngi tudd Dalin Koor Dalin bi c'est une chanson boo xamante ne nii dafay dafay damay jël exemple damay damay jël exemple ci suñu jeeg bu baax ba nekk ci kër ga di fa sëy di def lu baax di ko rafetal Salla ki nga xamante ne nii euh, way bi li muy li muy wane rek mooy jeeg bu sëy ci këram dafa def fa lu baax ba ay goroom ak ay njëkkeen kontaan ci moom di ko delloo ay maa ngi jégalu maa bu baax a baax li tax ma dugg ci biir way wii damaa ñëw studio fekk la fa dégloo doo ak yow wi ma xam ni way wi bu génnee xale mm-hmm. yi jigéen yii sëy te bëgg a sëy ko dégloo mu yee ndax am suy du yow ak sa kese say jëkkër yi ci lañ bokk goro yi ci lañ bokk rek ci yi ci lañu bokk te fi jamono toll ak say internet yi xew xale yi xamatuñu fu ñuy taxaw bu ñu dégloo way bi kat yàlla yee kon yow macha allah da ngaa way ngir yeete yàlla yàlla bu sa fan réew mi yëpp ngi lay bàyyi jërëjëf <laughs> morceau bi ci topp nag mu ngi tudd jirim morceau jirim moom ku ko dégg xam lan moo tax ñu woy jirim jirim mooy nga xamante ni nii dafa ñàkk ay waajuram yaayam ak papa ba pare ma mu nekk morceau boo xamante ni ma rendre ci hommage parce que album bi dama ko rendre hommage sama papa ak sama yaay parce que dama ñàkk sama yaay sama papa ci intervalle un donc loolu moo tax bi album bi ma koy door ñoom ñu ngi fi woon waaye album bi di pare fekku leen fi yàlla ak pexeem ya jaam jaam ak pexeem yàlla ak dogalam morceau bi mu ngi tudd jirim ma koy rendre hommage sama ñaari wayjur yi nga xamante ni dañ fi keroog bu ñu wàccee man maa ngi dooru kon tey li nga woy nii woyaloo ko ay da sàmb rek mais àdduna ko ko woyal woy nag dafa war a yeete woy bu diglewul yeetewul amul njëriñ te fi nga jaar ci li nga xamante ni tey mooy album bi parce que yéen yàlla Mouhamed nga war a jaar mais def li nga war a def yàlla ko yàlla barkeel xibaar bi seen yoon bokk ak xibaar bi jërëjëf. bi ci topp way ndel c'est une chanson moo ko way ma ma reprendre ko. jubluwaay euh, également euh, faire euh, transmettre aux journalistes c'est qu'avec la plateforme musique bi on a avec le nouvel album Aïda def benn affaire bu bees boo xam ne moo tax ngeen gis code QR bi nekk si si affiche album bi boo xam ne si tu veux télécharger l'album dañ koy scanner après ñu lay renvoyer carrément sur euh, tous les types nga xam ne du ko mën a jël par Orange Money du ko mën a jël par Wave ak euh, pense yeneen euh, yeneen transfert d'argent yi nga xam ne am nañ ko quoi donc loolu vraiment bëggoon naa que journaliste bi si baax parce que aujourd'hui la musique elle est trop partagée gars yi ñu jël artiste dañuy nekk ci c'est bon ok damay répondre wala bon ma répondre première question bi morceau bi morceau jirim bi nga wax seen chanson boo xamante ne nii euh, mën naa ne dafa mel ne yàlla dafa xamoon ne que ne euh, je vais perdre mes parents avant la sortie de l'album l'album Euh, morceau bi enregistré naa ko bien avant sama papa ak sama yaay di gaañu mais xëy na yàlla loolu daf ko daf ko lu mu programme la lu mu programmé la woon euh, après defoon naa ci beneen version boo xamante ne nii dama si wayoon sama yaay ak sama papa mais je sais que ne je je je su ma suma ma naree ko du ko du ko mën euh, way naa ko bien avant la mort de mes de mes de yàlla dafa xam ma bon il faut savoir une chose comme je dis moi je suis apolitique man je fais pas de la politique sama gis-gis ci réew mi li ma gis man mooy Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar li ñu war a li ñu li nga xamante ni man am naa ko ci sama gis-gis euh, am ko ci sama xalaat je pense que ne lu may wax la mu génn ci sama làmmiñ dem ci nopp ñi nga xamante ne ñoo koy ñoo koy dégg il faut savoir aussi que l'album album bii nii def na deux ans su matul deux ans il a fait un an et demi donc li tax mu retard pour génn mooy sama dese sama dese ñaari wayjur yi moo taxoon ma effacé wu si si si si si si si si musique bi euh, kenn gisatuma ci woon euh, ba tax na tey su ma nee man situation Sénégal fi mu toll ku mu inquiété wul rek je pense que ne yow doo sénégalais ñu man ka mu nekk man ka mu nekk keneen ak keneen ñun ñëpp la situation bi inquiété inquiété mais li ñuy wax rek mooy Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar et que tey Sénégal dëkk la boo xamante ne nii ah, dañu am ay kilifa diina yoo xamante ne dañ fi nekk def fi loo xamante ni ala àll mënul dañ ñi ngi ñaan pour que Sénégal am jàmm ak am salaam ku ci nekk lii sa sa yitte nga dem dox ko keneen ak keneen dox ci ay yitteem Sénégal jëm kanam et que euh, euh, maaleykum salaam merci beaucoup lan moo lan moo ci topp merci beaucoup su ma su déglu bu baax say que sa première question bi ça parle de entre bul ko sànq et nangu euh, et que kan mooy bind way man bokk ci sama man man bokk man ci sama sama sama carrière sama gis-gis dama bëgg à chaque fois su ma génnee album way yi nga xamante ni dama koy way nit di ko jëlaat di ko déglu mu am lu leen jëriñ loolu mooy tax a chaque fois ci sama ay album damay def ay thèmes damay def ay thèmes boo seetloo album bi li ci nekk yëpp c'est des thèmes à part way yu nga xamante ni wayu mbëggeel bi la ma def ak Dip ak euh, euh, euh, Waynde ñoom ñoo ci nekkul ay thèmes mais album bi lépp lu ci nekk ay thèmes la sama maam Ndiaga mbay daf daan wax naan way bu diglewul yarewul du ay wax du ay way ay naxaate la et damay jël loolu tout tout temps exemple ci loolu par rapport ak écriture yi donc ñu damay liggéey ak ak équipe comme par exemple bu ñu nekkee bu ñu nekkee studio dañuy ne comme nañu jéem a bind ci ci way bi musique bi nañu nañu bind ci thème bi nañu jéem a bind ci thème bi su fekkee ne dañu ne nañu bind ci thème bi et que boobu man mënuma ko bind donc dañuy dem seeti feneen pour mën a bind thème bi boo comme ni nga ko kiyee nii benn euh, morceau nangu bi euh, c'est un bu tudd euh, bu tudd Tidiane Kourouma moom moom moom moom moo ko moom moo ko bindal s'il te plaît rappelez-moi Thank you. waaw euh, li topp suite album bi nag incha allah dama bëgg ñaan yaa ñaan sénégalais yëpp ñu ñaanal ma parce que tamit ku liggéey album bu toll nii ñaan nga yàlla su génnee euh, mu mu mu jur leneen ba tax na euh, album bi incha allah dafay ànd ak une grande soirée de gala le 3 mars au Méridien soirée sargal jigéen ma ci invité aussi toute la presse sénégalaise Euh, di leen wax ne aussi ñu ngi prévoir ay tournée nationale di def ay aussi ay tournée internationale le 18 ju mars bu neexee yàlla ñu ngi dem Gambie pour soirée bu mag buñ fa war a jouer kan boo seetloo man lépp lu may way rek sama maam la way ni moo sa way bi moom moo ko wayoon à chaque fois su may dugg ci traditionnel rek Euh, moom moo may ins moom daf may inspiré bu baax parce que boo seetloo Mosso Wayndé bi technique solo vocal yi ma utiliser daawuñ ko dégg ci Aïda Samb c'est des techniques yoo xamante ni paa yi ñoom ñoo ko doon woyee sama ñoom maam ñoom maam Ndiaga Mbaye ak ñoom maam Kaani Samb ñoom ñoo ko doon waye donc ñoom aussi dañu bokk ci li nga xamante ni dañ may inspiré bu baax a baax merci Bonsoir. Merci beaucoup. Merci. Thank you. bon première question bi du concerné wul Aïda Samb rek ñu nekk ci àdduna boo xamante ne léegi nit yi nangu la tudd nit ñi li leen suñu borom may alors ko yàlla dafa bind te yamalewul te yàlla may na ma loo xam ne mayu ko keneen yàlla may na keneen loo xamante ni man mayu ma ko ci sens bu nekk parce que boo xoolee ni jalousie yi am yi yëpp li koy indi mooy nit ki yàlla daf ko def lii yow defu la nii yow nga ne doon nangu kii li ko yàlla def boo seetloo ci fin woy bi maa ngi naan nangul ma man li ma doon man ma nangul la li nga doon ndaxte boo nangoo li yàlla dogal doo sonn doo jaaxle waaye nangu naa tamit li nga xamante ne suñu borom man mayuma ko nangu naa ko ko parce que jàpp naa ne gënul ci man loolu moo tax suñu boroom mayuma ko donc je pense que ne morceau bi c'est tellement vaste dafa dafa dafa yaatu de telle sorte que ku ko déglu rek di nga si mën a di nga si mën a gis sa moroom parce que tamit lu comme ni nga wax man nangu nit ñi nangu ko que ñu ñàkk ko nangu man xam naa ne waykat laa <laughs> mm. waaw boo boo boo boo seetloo album bi dafa bëri ay sonorité te li ko waral mooy bi may door a génne album en 2012 sénégalais yëpp dañ ne que man musique traditionnelle lay def et c'est man je suis né dans une famille gawlo boo xamante ne musique traditionnelle moom mooy suñu mooy suñu aada loolu lañu xam parce que ku xam Samba Diabaré xam musique traditionnelle mais je pense que ne musique dafa toll léegi foo xamante ne nii il faut nga nga nga nga am ubbeeku ouverture ouverture bi moo wone tey nga déglu morceau euh, bi ma def ak Dip ça n'a rien à ak li Aïda daan way boo dégloo Laalia c'est une chanson traditionnelle mais différent ak traditionnel yi nga xamante ne nii moom laa faral moom laa faral daan way euh, morceau waynde c'est une chanson boo xamante ne nii c'est une chanson typiquement traditionnelle mais traditionnelle u Sénégal la traditionnel lu Sénégal donc dama boole ay ay registre yu bari boole ay boole mélodie yu bari pour que vraiment mooy li ma wax ne il faut que sénégalais yi aussi xam ne Aida du musique traditionnelle rek lay def foo ko dugal mu woy merci par rapport ak piraterie bi moom yaakaar naa ne képp kuy nekk képp ku nga xamante ne nekk yaa ngi yaa ngi yëngatu ci musique xam nga ne piraterie moom musu fi dañ et mën naa ne sax dafa gën a dafa gën a am doole dafa gën a am doole parce que des fois sax daan nga génn album jaay cinq mille exemplaires wala nga jaay dix mille exemplaires mais léegi mën nga génn album mënoo sax jaay mille exemplaires donc loolu foofu la piraterie bi commencé et je pense ne des na liggéey bu mag a mag a mag boo xamante ne nii war nañ ko def pour que vraiment euh, piraterie bi jug Sénégal parce que artistes les artistes sont fatigués ku fekk studio ku fekk artiste mu nekk studio ku fa fekk artiste mu nekk studio fekk kiy liggéey ci studio bi mu nekk ci studio bi di nga xam ne liggéey studio c'est pas évident lu metti la donc vraiment war nañ bàyyi xel bu baax artiste yi bonsoir. Ça va. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. les différents titres qui sont proposés. Après, le nombre

te li ko waral mooy je pense que ne àdduna lépp mbëggeel la mooy mbëggeel bi ngay am en à travers sa partenaire album mbëggeel bi ngay am à travers ñi nga bëgg sa yaay donc àdduna lépp mbëggeel la et je pense que ne la vie tourne autour de ça aussi donc loolu aussi il faut ñu comprendre ko c'est vrai que je suis e et que et je amoureuse peut-être loolu aussi

ndax parce que elle est première dame wala dama ko woy wala parce que autre chose dama ko woy parce que dama ko gis mu nekk une femme gis sociale bi nga xamante ni nii mi ngi ci ma gis ne nit la boo xamante ne nii et li ma gën a frappé ci moom ba tax ma am cofeel boobu si moom ba war a dugg studio di woy war ko si boole c'est parce que c'est pas sa simplicité sa simplicité envers les Sénégalais tey je pense que ne Marème Faye Sall moom première dame la su ko neexoon tey palem lay toog gérer famille am gérer palais mais à chaque fois danga koy gis mu ngi génn di dem si nit yi di dimbale nit yi di leen jàppale di di def euh, sociale boobu nga xamante ne nii euh, tey képp ku kuy nit rek war nga ko rafetlu tey le principal bi nga xamante ni tey loolu moo tax woy bi am c'est parce que man je l'estime bien à travers sa simplicité et je me suis dit pour bi may def morceau bi pourquoi pas rendre hommage première dame ça n'a rien à ça n'a rien avec la politique comme li ma ko waxoon ci début bi moi je suis apolitique je fais pas de la politique déjà pour pour wax dëgg pour wax man musuma gis Faye Sall comprendre mais dama ko gis à travers li muy def à travers ni muy jàppalee néew di doole yi à travers ku feebar y a pas mal d' yoo xamante ne ni tey feebar nañ fi nekk ci ay tolof tolof en charge bu leen complicité bi nga xamante ne nii mi ngi koy dégager en tant que une femme sénégalaise loolu moo tax ma rendre ko hommage euh, jigéen ñoo xam ni yaa ngi liggéey ak président question bi mooy on a constaté que depuis quelque temps il y a l'absence totale des spectacles au niveau du Sénégal la plupart des artistes lu ñuy lu ñuy joué loolu dañuy jëlee ñu jóge à l'étranger par exemple Paris ou Londres ou ailleurs mais fii on a constaté que absence totale boo xam ne spectacle bi ñu meloon avant dans les années 2000 da nekk loolu yow en tant qu'artiste day jëlee alors ban ay sànq bu waaw man jàngat bi may def ci loolu mooy musique bi dafa changé musique bi dafa changé bu baax a baax et pour dire la vérité. produit produire Sénégal problème la parce que tey euh, ñi nga xamante ne nii tey ñoom ñoo doon toog artiste bi war a jouer bërëb sàngam ñu yàkkam ci ko euh, jël ay jël dem jël seen xaalis dem dagg ticket dem seetaan loolu amatul dafa am benn système boo xamante ne nii ñu wax ko te dee dañ ko indi Sénégal et je pense que ne loolu moo rey musique sénégalaise mooy jël ticket yi. yóbbu ko jaay ko jël jëlaat ticket yooyu retourné waat di ko maye pour nit ñi ñëw seetaan si loolu moo rey musique sénégalaise et tey ñun ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko fi indi ba def ko fi ba xamante ni tey loolu moo rey musique sénégalaise tey ñooñu bokk nañ ci li nga xamante nii tey tax na spectacle yi nga xamante ne nii da doon bari benn Viviane di ay voile d'or ay des décembre di woote euh, Saraba muy fees. Euh, keneen nag keneen di woote bërëb sàngam muy fees léegi nit ñi natuñ ticket dañuy toog xaar nga ñëw may leen ticket ñu dem seetaani je pense que ne loolu tam loolu loolu moo loolu loolu moo tax musique bi musique bi yàqu moo tax spectacle yi aussi bareetul parce que tamit yow mi artiste bi dugg studio woy ba sonn passé ay moment yu métti biir studio nga génn déjà album bi yow amoo ci dara léegi après yow ba pare yaay lambaat sa poste pour fay musicien yi loolu aussi je pense que ne c'est pas intéressant quoi bon oh, ma ñëw ci première question bi fàttali ma bopp bi zone yi day dem de waaw dab yi dab yi déjà euh, morceau bi wayu gawlo la waa morceau bi wayu gawlu la et je pense que ne Youssou bi ma koy jox ne pour ma reprendre ko xam na ne mën naa ko moo tax mu jox ma ko te xam naa ne su fekkoon ne moom xam na ne man mënuma ko reprendre donc duma ko du ko jox répétition la ma ko joxee ma tari ko dëggaadu studio daal di koy tari loolu la rek waaw c'est vrai que ne album bi amul featuring ak benn jigéen ça c'est mais juste que du dara parce que man awma benn problème ak benn waykat bu jigéen ñoom ñëpp samay samay samay samay sœur lañ ma jàppee leen sœur mais juste que ne ça dépend si registre morceau bi ah, kan moo ko mën a def ñu woo ko si comme morceau bi ma def muy bay bi ma invité dib registre la boo xamante ne ni registre dib la donc pourquoi pas ñu jox dib dib mu def ko yeneen yi mooy que ku wax Euh, morceau Youssou Ndour wax Mbaye jeey fay te morceau beneen morceau bi nga xamante ni nii moom mooy wax Dalinko morceau jigéen la tey Sénégal ñëpp xam nañ diggante Séné euh, jigéen ñi ak Mbaye jeey fay seen longue histoire moom dafa bëgg jigéen ñi di leen sagal di leen tëral di leen jox cër bi ñu moom donc loolu moo tax ma woo ko ci morceau bi pour moom mu def si euh, mu def si participation jërëjëf merci beaucoup. jërëjëf jërëjëf jërëjëf merci beaucoup jërëjëf incha allah dinaa ci bàyyi xel bu baax dinaa ci bàyyi xel bu baax incha allah bu neexee yàlla. merci. merci beaucoup jërëjëf jërëjëf incha allah dinañ si bàyyi xel bu baax euh, pour ñëwaat di ñëwaat li ma mën a wax daal sénégalais yi ñu xam ko ah te mu nekk loo xamante ne lu ma gëm la parce que ça fait presque deux ans ñu nekk di liggéey si album bi ba mu génn man daal li ma ko mën a wax mooy Aida is back te fi mu nii dama pare taxaw pour vraiment jël li nga xamante ne man moom laa moom ci musique sénégalaise

prête à souligner ma haute scolarité qu'on n'a pas l'habitude au Sénégal. Grâce à ce titre, on va permettre aussi de faire beaucoup plus joli avec d'autres artistes. Euh, c'est vrai que j'en ai déjà fait. Et est-ce que c'est une ouverture pour d'autres jeunes Merci beaucoup. Merci, c'est vraiment gentil. En fait, c'est une chanson. Euh, le morceau, euh, le morceau avec Dip, c'est une chanson d'amour. Mais différent de ce qu'on voit tous les jours, ce qu'Aïda Sam fait. C'est une chanson que Akache a composée. Et il me l'a proposée, je l'ai écoutée. Au début, j'étais un peu euh, réticente, mais je me suis dit pourquoi pas, parce que je sais que euh, j'ai une voix et je peux, le, je peux poser ma voix n'importe, sur n'importe quel registre. Donc, euh, c'est une chanson donc, euh, de, la registre, ce n'est pas, c'est pas, du tout, et, et c'est pas du tout évident. c'est pas une registre aussi sénégalais, séné, séné, séné, séné, sénégalaise. Mais bon, euh, comme on dit tout le temps, la musique, c'est quelque chose de d'ouverture. Donc, il faut toujours chercher et faire quelque chose de nouveau. Sénégal yi góor la am góor mën a ko ci suñu askan du Joor du Mbàkke du Luga fu mën a doon lii nag moom daf ko doon ci man ci deetam la tey ba def elle sant du ci sonn elle fait facilement yaa tax xaw ci Sénégal góor jigéen rek la promotion de la musique vous avez une musique extraordinaire quand on parle de musique La musique, elle est différente de la musique. La musique a un fond. aujourd'hui, vous avez parlé de la pure musique. Vous avez parlé de la diversité musicale. Ce titre bi nangu et ni yow dama takalaaya ambassadeur de la paix. lii mooy tolérance nangu mooy acceptabilité mooy tolérance muy indi jàmm ku nangul sa morom la nangul.

nii laa toll jóge Mbàkke ñu indi ma fii bi ma ñëwee ci ngóone mii laa ñëw lañ ma indi sama benn tonton bu tudd Amari Gise moom moo ma indi moo ma ci ngóone moo ma yóbbu ci tonton Kabou Gueye indi ci ngóone bi ma ñëwee ñu ne ma naa def audition ma def audition jour boobu ma réussir sama audition te boobu ba tey man ak ñoom te ma leeral ko ma leeral du liggéey rek moo moo moo ñu sekk du liggéey moo ñu sekk dafa am leneen loo xamante ne moo ëpp liggéey bi mooy mbokk gi la famille ku wax ayda wax euh, Ngoné c'est la même famille c'est la même famille euh, ak Ramalam la def merci waa album bi mu ngi ci mu ngi ci mu ngi ci plateforme yëpp album bi mu ngi ci plateforme yëpp euh, bépp plateforme boo xamante rek mën nga fa go pour euh, déglu musique rek mu ngi ci ci plateforme et je pense que ne mënoon nañ ko afficher ci ci écran bi ñu gis ko te plateforme internationale yëpp album bu waaw iTunes Spotify Deezer yëpp mu ngi si mu ngi si maaleykum salaam Thank you. waaw morceau boobu nag morceau bi nga xamante ni moom mooy Euh, dalinko may remercier bu baax bu baax a baax a baax euh, suñu sama benn frère Njawar moom moo ko bind moo ko composé jox ma ko pour ma reprendre ko waaw donc way la boo xamante nii man composé wu ma ko Njawar moo ko composé moom moo ko bind jox ma ko pour ma interpréter ndeysaan ndeysaan ndeysaan Thank waaw en fait moom question de choix la rek ak question boo xamante ni fan nga bëgg a fan nga bëgg a jaarale sa direction musique loolu moo tax bi muy def morceau bi boobu c'est un peu euh, doo ko mën a tuddee arène bi doo ko mën a tuddee leneen tellement que sonorité bi duñ ko faral di gis euh, fii nii Sénégal mais way la boo xamante ne nii musicalement musicalement c'est c'est c'est c'est c'est très fort ma def ci ak ma ànd si ak euh, sama frère di dund gis et je pense que ne euh, dina neex euh, jeunesse bi parce que way tam album boo ko dee def tamit soo ko def tamit il faut aussi nga nga ku nekk nga jox ko cëram mag ñi gis ci seen bopp xale yi gis ci seen bopp keneen ak keneen gis ci seen

Euh, non non du man maa ko génne personnellement man dama comme li ci ñëpp am moom laa si am dama jékki-jékki rek gis ñu bloqué son bi sur sur TikTok li ci ñëpp am loolu laa si ñu ngi jéem a xool exactement euh, lan moo waral loolu mu am ba nga xamante ne ni loolu du ñëwaat ci yeneen li nga xamante ni mooy album bu bees. nga jékki-jékki ñu bloqué ko parce que des fois dafay am conflit entre YouTube ak ak euh, TikTok parce que YouTube ak euh, TikTok ay concurrent lañu donc la plupart du temps ñun bu ñu dugalee temps booy après dañu bloqué euh, dañu bloqué son bi sur sur TikTok parce que tout simplement bu ñu bàyyee son bi sur TikTok au niveau de YouTube affaire bi dafay daal c' est une guerre boo xam ne que ça ne concerne même pas la musique sénégalaise c' est une guerre boo xam ne que suñu suñu xaw a nekk quoi. raison pour laquelle raison pour laquelle looloo tax ñuy ñaax nit ñi parce que peut-être les réseaux sociaux peuvent exister mais la manière li ngay li ci utiliser loolu moom mooy problème réseaux sociaux yi nit ñi tubaab yaa koy utiliser mais gis nañ loo xam ne dañ koy mën a mais nous on utilise les réseaux sociaux de telle manière que ñi nga xam ne njëriñ bi dañ ci war a war a fay donc pratiquement elle a dit piraterie bi rey na musique bi donc il faut que aussi d'autres façons de promouvoir la musique ñu teg ko sur la table raison pour laquelle ma tout à l'heure mooy introduire mooy on a essayé avec waa ñus dema teg benn système de de QR code boo xam ne ne Sénégalais que yaa ngi question yi c'est bon léegi dama bëgg nag ñu may ma tuuti ñu may ma ma remercier ma remercier bu baax parce que tamit góonu góoy génn golo gudd na waaye boo ci xam nuñ ko olof di waxee. waaye loo ci jëkkër bu baax album bi def ci duma ne sax album bi mais mën naa ne sénégalais war nañ def benn constat ni Aïda Samb bi mu amee jëkkër ak bi mu amee wul jëkkër y une grande différence parce que nit tamit bu nekkee ci sa ginnaaw la jàppale xoolul li nga am gisul li nga am li jëntiwul li nga am damay sant sama jëkkër bu baax ci ko gërëm ci taxawu bi ma taxawoo ci jàppale bi ma jàppale ci li mu am ci li mu mën ci xelam su ma stress sax su ma stressé sax moom moo may dalal donc ma koy remercier bu baax di ko ñaanal yàlla li mu bëgg moom moo ko xam yàlla na ko ko suñu borom defal parce que tamit tey yàlla mënoon na def mu boole ma ak moom te mu ne ah man sama yoon nekkul ci musique am sama jabar la damay yem ak moom ci diggante jëkkër ak jabar waaye xoolul dara dara loo xamante ni nii lépp loo xamante ni nii bëgg naa ko suba ba ngoon rek xanaa ma ne bëgguma waaye bu may waxtaanee dara di ko kafe sax ne man damaa bëgg li di ko kafe su ma xëyee mu lijjanti ko indi ma ko ma bëgg ñu di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla lu mu mën ren yàlla na mën lu ko raw déwén di remercier bu baax aussi Prince Art parce que depuis des années mën naa ne man ak ñoom ñu ngi liggéey te boobu ba tey dara ñaaw que mu nekk Ngone que mu nekk Ibu ñoom tamit ñu jàppee ma comme seen sœur Ngone bañ na ba doom la may wax doom moom doom la may wax donc ma leen di sant di leen gërëm parce que ku déglu album bi aussi xool morceau yi nga xamante ni nii Ibou moo ko def di nga xam ne daf ko liggéey ak xol daf ko liggéey ak professionnalisme boobu noonu entre parenthèse maam ñëw nag ci ñi nga xamante ni vraiment dañ may jàppale hmm? dañ may jàppale di ànd ak man suba ak ngoon guddeeg bëccëg di ma jàppale malgré sama ay humeur parce que nit laa bu boo xamante ni nii yàlla moom ma bët bindee noonu peut-être je peux dire que ne damay mais duñu xool ci loolu à chaque fois nu ma mel rek dinay dañuy dund ak man ci loolu muy sama jabare bookar meng da nga xamante ni moom sama doom la moom bëggul sax ma di ko tudd sama jabare moom c'est une personne boo xamante ni dama koy sant ci ko gërëm parce que il est tellement disponible suba ba ngoon xanaa Kirikore moom danaan la yow waxal rek waxal li nga bëgg rek li nga bëgg loolu laay def ma bëgg ñu tàccul ma ko bu baax sama jàmm ma di waaye boobu ba tey xàddiwu leen te xam naa ne yéen ñëpp bu ngeen ñëwoon tey fii dina fees dell may jël nuyoo bi nag di ko teg ci loxo laa liyoon laa liyoon bu Aïda Samb di jëlaat nuyoo bi di ko teg ci musli bu Aïda Samb parce que tamit ñaar ñooñu mënuma lim ñëpp ñaar ñooñu ku wax Aïda Samb rek xam ne Aïda Samb ak ñooñu ñoo commencé ndoo ba ñu ngi yegg si fii maa ngi sant sénégalais yi yëpp di leen gërëm di am mbégte di leen wax nañ ma ñaanal di jox aussi ñëpp render vous incha allah le 3 mars le 3 mars euh, King Place